wax na ko sax tàllal loo xam ne ñëwul kenn ci Sëriñ Tuubaa loola nag kon la muy tegtale mooy moom itamit gisuñu koo gën a kawe yitte mu indi nag wax ju am solo ndax yitte ju kawe itam da cee bokk xeeti baat yi muy jëfandikoo muy jom ak ngor Sëriñ Muntaxa dafay wax ne jom ba jom jeex bañ des gannaaw rekk la ngor ba ngor jeex bañ ñaaw rekk la waaye nag boo ko jaayut yàlla ak tuskare la kon yàlla ñu da yàlla defal jom te defal ñu ngor te nu jaay ko yàlla sëriñ Muntaxa nii la ko misaale lu ngor ak jom rek ci la ñu rawaatee waaw ah, dama wax ne ngor ba euh, jom ba jom jeex bañ a des gannaaw rek la ngor ba ngor jeex bañ a ñaaw rek la ah, waaye nag bala moo am njariñ dëgg dëgg dëgg nag nga am jom te jaay ko yàlla waaw bala moo dëgg dëgg dëgg am jom te jaay ko yàlla waaw waaye jom jeneen ju mën a doon tey jëmul ci yàlla loolu tos rek la waaw <laughs> waaye ngor ba ngor jeex bañ a ñaaw la. fa tabaarakallaa yàlla na yàlla defal jom ak ngor te nu jaay ko yàlla suñ boroom tabaaraka wa taala moo tax day mag ñi àndoon ak sëriñ bi jom ak ngor tax na ñoom tamit la sëriñ bi yoroon lépp te jëlee ko ci boroomam kenn ku ñu nekk ci ñoom duy na ca ba géejal loo xam ne ni doy na ko sëkk. doy sëkk mbooloo ma ànd ak moom àdduna ak alaaxira kon nag nañ leen roy moo tax sëñ Mbay Jaxate day wax ci wayam yu tedd yooyu day wax ne ah na farlu bu baax de te nangoo son bu fekkee bëgg ngaa am daraanga bëgg ngaa am dara bëgg ngaa am taraanga farlul te sonn ku sonnul sonle sonna rafet asgor dafay sonn kay farloo ka noppalu nit ku bëgg a tedd te def ab tëddkat dafa dof sonn ak torox lañu daa sàkkoo nga xarit koo gis mu gën ñëpp daawul dox di xëy ne galas di def yoxoy nee na koy sàggan ba dee fi ko jot Sëriñ Tuubaa day wax ci nax ju xod ay xaaji ne ah képp ku bëgg a réussir day doo def loxoy neen doo defit am noppalukat fadaatan wa raxatan lan yusira shaxsan arada an yakuna musira te murid saadix day sëñ ba jax daf daan wax ne murid saara day doge waaye dee su ko dog murid dafa war a àgg foo xam ne ni moom dootu xalaatati ku ko lu ko dog wala ku ko dog waaye lu mu dog ak ku mu dog lay xalaat moo tax mu ne murid bu dëggal dafay dog lëf ne lëf du ko dog day cor la fit daldi waaxuy wëy ne lëf du ko cor waaye yooyu yëpp nag sëriñ bi dafay jàngal ne ci coono bu metti ngeen koy amee rawatina nag néewal ay nelaw nga xam ne ni daa saa demee ci moo na yi neewal ay nelaw dañ koy boole ci seeni mbir moo tax Sëñ Tuubaa day wax ne bi xadril kaddi taktasibul maali wa man talabal hula sahara layaali taroomul majda summa tanaamu layla laqad atmaxta nafsuka fil muhaali bu fekkee dangay ngay sàggu sàkku taraanga bu yeboo nga xam ne dugg nga ab coono ah képp ku bëgg ak kawe itam nay neewal ay nelawam moo tax sëñ ba Jaxate ba tey day woy ci woyam yu tedd yooyu ngir nit ki mën a jote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 nelaw lekk wax néewalal yett yi te boo néewalal yett yi ka tëng nelaw tuuti wax tuuti mos tuuti nii la dag yëpp daa def ba for ndomba ga defal nii ma wax baa nga jébbal sa mbir ku def nii ma wax kon ba tey wàcc nga kon misaal yu bari yiñ ci mën a joxe yi nga xam ne ni mënees na ci amee alhimmatul aaliya kawe na te bari na waaye incha allahu ñoo ngi koy tënk foofu kon ëllëg suñu borom mën nañoo tawfiixale ñu jàllaat ci alhimbatul aliya wala ci yeneeni tomb di ko daanele nag cant goo xam ne ni am na fu mu tàmbale waaye yëmut fenn ñeel ñi nga xam ne ni ñoo ngi jàppale waa daara xikmatul yawmi te lépp jëm ci jàng ak jàngale ak yare ak dimbalante ci sunu biir ci ndigalul sëriñ bi daara ji seeni loxo moo ko taxawal moo koy doxal fii mu agsi itam moo ko fi tolloole muy ñaari téeméeri yi ñuy jot ak ñeenti téeméeri ki junneeg lu waay am amut nag yoonu yàlla lu ci rëy milliard xaj na ci ab fifty xaj na ci waaw fifty néewu ci milliard it bariwu ci ndax yoon yàlla na xaj na ci waaye nag cant gi ñu leen di cant dafa rëy ndax pas-pas bi ak pasteef bi ak yitte ji ji ngeen am ak jamono fii mu toll kon xam ne nii xat na ci ñëpp waaye ñun de yëguñu ko santiruñu wala ñu seetlu benn yoon dara lu wàññiku ci doxin wi nga xam ne nii bi jamono ak ak seegut fii itam yeneen yeneen ko daan dox ak nun waaye nag ñoo ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu defal leen tawfiix ju toll ni lépp lu ci waay def muy fifteen muy dërëm yàlla nag ko suñu borom fulal te fay ko ko fii ci àdduna e, misaalal ko fii ci àdduna te fay ko ko àllaaxira ëllëg ci barkeb sëñ Tuubaa te ndajee ci ngërëmul yàlla te mooy ngërëmul Cheikhul Xadim di waxaat mbokk yi tamit ñi nga xam ne nii dañ ci def seen dara ku ci def